vite fait waaw dóoral dóor waaw Aïcha dama ko bëggoon jël ci ba mu gën a ñor mais bàyyi ñuy wax soo jéem mais xam ngeen ni euh, Ousmane Sonko dafa am kilifa bu ko seet si fan yi hmm. déglu leen bu baax ne ko mun nañu bàyyi lépp mu sedd hmm. mooy dossier suite booto boobu ngay wax mooy dossier Prodac mooy yeneen ak yeneen mun nañ ko teg ci suuf hmm. waaye doo nekk candidat deux mille vingt quatre. Hmm? da ngay def sa déclaration ne doo def candidat doo doo présente sa candidat. déedéet kay répétal li nga wax dégguma ko. maanaam dafa kilifa bu ñëw seet si Ousmane Sonko. kilifa. waaw bu nekk ci biir gouvernement bi. damay bañ dem CPI. CPI laay bañ a dem temps yi. te nekku fi ba Pam ñëwee. mun naa dem CPI maanaam kilifa diine la kilifa aada la. kilifa la daal ba nga xam ne ñëw na seet si Ousmane Sonko. te ba mu koy seet si mu ngi ànd ak ñaari nit ak moom muy ñett mu ne ko lii mooy sama tànk. xalaat naa kan la de. damaa bëgg wax. gi ma xalaat nañu ba pare. ki ma xalaat da ngay jël sa candidature nga teg ko ci suuf deux mille vingt quatre deux mille vingt neuf bu la neexee nga présenté. mbaa du waaj ñuy coow fan yi moom la. en tout cas daal dem na fa nee na ko lii nañu bëgg. waaye tontu Ousmane ko bee gën a neex. lu mu wax. dafa ne ko yaakaar bi sénégalais yi daf ci man ma am ko ci sénégalais yi sénégalais yi am ko ci man xanaa askanu Sénégal ñoo mën a génn ne ma président jaru ngay présenter parce que duñ la votel waaye tant que sénégalais yaa ngi taxaw fii naan ma. Mhm. wóolu nañ la ñi ngeeg yow ànd na ak yow. boo présenté ñu gunge la nee na loolu kese moo mën a tax ma bañ a nekk candidat moo lay wan nag ni ko bi ma njëkkoon wax sànq. Mhm. ñii ba naan ko léegi da ngay bàyyi sa candidature ñu ko waxtaan ba euh, deux mille vingt jàll. Mhm. yow mille vingt neuf nga ñëw nekk candidat. Mhm. moo ko kon ñoom pare nañu pour yóbbu ko ca abattoir abattoir nag mooy fa ñuy reyee abattoir politique mooy fa ñuy reyee leader politique yu am ambition yi. doy na waar xanaa kon foofu la ñuy jaaree rek euh, mbokk yi daal di euh, tàggatoo Pape Sané. waaw mais encore euh, Aïcha énormément de plaisir. c'est vrai que Assane Assane jël si na ma maa ngi ñëw. non Assane jël na. <laughs> te du egg si fii de ndax suukaru koor la ma damay disaat damay dix-sept heures yi rajo ba rajo baa ngi may xaar ah. mais man après bu ñu génnee ci suuf di nga ma di nga diwee kan moo kan moo kan moo dem société dinaa la wax pare naa Assane mu ngi noonu maa ngi di ñëw non dinaa la ko wax non mm. dinaa la ko wax balaa prochaine live bi waaw parce que am naa am na ci ku pare sax pour seede ci Hmm? nañ ko defee woon keroog woo ko téléphone. Ah. moom pare na pour wax ci. waaw kooku kay xëy na bu ñëwee dinañu dinañu dinañu dinañu gindi. voilà du noonu. dina jox dig daje àjjuma prochain incha allah àjjuma mes chers amis chers internautes vous avez été nombreux à nous suivre. sur ce live vraiment très nombreux euh, plus de 3500. bon ñu jox leen dig daje incha allah euh, vendredi prochain. Mm, ci mm. yeneen thème ainsi de suite euh, jaajëf jaajëf. di nuyu sama mbokk yi Pape Ndiaye Hannibal Djim tout tous ceux qui sont dans les liens de la détention di leen ñaan yàlla ngeen muñ yàlla génne leen fa ci jàmm ak salaam yàlla euh, gunge ñu ci weeru koor bi defal ñu ci ay xéwal macha allah tabarakallah Aïcha. jërëjëf bàyyi la nga dellu ci njaboot gi. ok incha allah à vendredi prochain. Euh, incha allah beneen live 2 avec 16 heures rek baax na wala 15 heures demi baax na ñu dem ba 17 heures. man Samara. ah 15 heures demi 15 heures demi c'est bon ay dima réer ma